gannaaw ay kàddu yoo xam ne ki fi nekkoon njiitu réewum Sénégal di Abdoulaye Wade yëkkati na ko ca Versailles gu mu nekk ci ab vidéo boo xam ne jot na cee feeñ jamono ji askanu Sénégal ay jafe-jafe la ñuy jànkonteel bu dee jongante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu dënmal di ŋàññi bu baax processus électoral bi élection yi nga xam ne moom la ñu dënmal dañu ko bëgg a njuuj njaaj ngir woo askan wi ngir ñu jóg ci nekk nag di ci joxe sa xalaat man li naa ko torop ndax euh, maanaam li tax ñu élection yi sàcc nañ pare mooy maanaam fichier bi nga xamante ne mooy fichier électoral bi nga xamante ni ca ancien ministre ancien kii la président ba léegi muy Senghor moo doon dox mu ñëw rey euh, fichier boobu indi fichier seen ñi nga xamante ni moo ko arrangé mu tànn leen ci élection yi génn leen ñooñu moo tax ñun rafetlu ñu euh, ni Macky Sall doxee daal ñun élection yi rafetlu ñu ko ñun ci gis-gis bi ñu xalaat ne ñun Macky Sall bu ni mu bëgg a doxee bu ko defalee askan war na mën a wàcc dox doxum ñaxtu ci mbedd yi bañ yàqal kenn dara bañ a rayante bañ a xuloo bañ a xeex wóor ko ni moom li mu def rafetlu wuñ ko waaw élection yi bu ko jëlee itam bu demee génn xam nga li nga jàngale woon moom dafa yàgg kon parce que yaa ko jàngale woon fi ne nii moom dañ koy pratiquer parce que li mboolem lu makki lu makki def rek si moom la ko jëlee. bi moom a bu ne fi la ñu toll a am Sénégal moom li mu wax noonu day wax rek même moom bu génn mënul génn kenn man maa wax lii. lankoor yi mu nuy àndil service yi du dox ni mu war a doxee du investir projet yi duñ ko mën a eh, duñ ko mën a kii yi fi nekkoon passage zone de service de deux ans deux ans yoo xam ne ci kanam duñ ko mën a euh, rétablir ñu continuer kii mu continuer liggéeyam moo gën a baax ñuy wax créer beneen président bu xam ne nekku fi. keneen ku gisee neneen kàddoom yooyu nag bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne te dénk si suñu micro bëri na ñoo xam ne ànd ñu ci ndaxte dañoo jàpp ne loolu fitna dëgg la mën a andi te ñi nga xam ne ñooy woow fitna boobee duñ ci gis seen jabar wala rawatina nag seen i bu ma nee di firnde rek xanaa ko amulum xel ndax li ma leer mooy doomam du fa taxaw di xeex ab jarabaatam du fa taxaw moom ci moom du fa taxaw di xeex jabaram du fa taxaw di xeex. ci boppam ñoo war xalaat ne waratuñoo nangu menn mag nag ñëw di leen jëmiloo fa wala di leen yuuxuloo wala di topp ci mbedd mi. ñeneen ñi jàpp ne Abdoulaye Wade nag xëy na am na cër boo xam ne war na koo mën a doxal ci état donte at yi mu toll nag war naa dem nopp ak lu mën di xew askan bi nga xam ne nag ñooy yeewoo ci diggante Touba ak Mbacké ngir ñu gën a yeewu ci jafe yi nga xam ne violence mën na ko indi ci ay jongante njiitu réew